waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk ñoo ngi leen di ziyaara di leen balu àq di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ñëwaat rek di ànd ak yéen ni ñu ko baaxoo ànde ak yéen ci ay bis bu jot di nafarandoo ak yéen waaye di fat leen toondoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci suñu bind yi wéy yépp ñu doon ànd ak yéen ci téereem bi nga xam ne moo tudd Munawwiru Sudur waaye ñu toll ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bi nga xam ne moo mujj ci téere bi te sëriñ bi radiallahu anhu duñu ci leeral njariñ yi nga xam ne moom la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa di jariñ waaye it duñu ci leeral lor yi nga xam ne moom la iblis yàlla na suñu borom bi subhanahu wa taala dolli ci moom ak rëbb lor yi nga xam ne moom la mën a indil doomu adama bi waaye gàllankoor gi nga xam ne moom la mën a gàllankoor doomu aadama bi ci dox digganteem ak jaamu yàlla waaye dox digganteem ak digal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu di digle kon ci bunt boobu lañu ñu suñu bind bi mujj ñi ngi taxaw ci bind bi nga xam ne euh, ci la sëriñ bi di wax naa euh, wa min ajaibi safii al mu'tama alayhi xayru salawatin tu'tama maa salaami rabbihi fi lxaali wa saxbihi fi lxaali walmaali tawjihu rabbihi bi jaahihi alazim ila xadimihi bi gabdurri nazim xifzan wa lazama tawfiqa bi kawnihi alxalifati rafiqa ci foofu lañu taxawoon ci suñu bind bi mujj ñuy woy ak yéen ci bind bu yees bi ñu war a dugg ak rek sëriñ bi di wa min makaidi laini bokk na ci pexey iblis mi nga xam ne yàlla def koo rëbb bokk na ci pexey iblis mi nga xam ne yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala daf koo rëbb ziida yàlla na dolleef tardan ak dàq wala anatan ak rëbb tafi goog dana dikkee masidan di ndolleet ci ñun ci jaamu gi nga xam ne moom lañ mën a jaamu suñu borom subhanahu wa taala waaye mu doon ak fegu ci yàq gi nga xam ne mën nañu koo yàqal moom iblis pexeeb yooyu lan moo ci bokk mu ne ixraajuhu moo di ak génneem at tawxida wéetal suñu borom bi subhanahu wa taala min xulóobi man ci xoli ña nga xam ne lahum ñeel na leen saqaawatun ak texee di wa faaraku te ñu tàqalikoo al am na ak kóolute laakinnahu waaye nag taradahu dàq na ko alqahaaru notaakoon ba mooy suñu borombi bi subhaanahu wa taala tardan ak dàq goo xam ne laazamahu taqoo na ko bihi ca moom inqihaarun ak not ilaa man jëm ci ñu dut ña nga xam ne laazamu taqoonan asaadata ak texe indallas yi tukkee fa ta nga xam ne jaada tabe na bi xarxil aada ci xoti baax te mooy suñu borom bi subhanahu wa taala nee na kon bokk na ci pexe yi nga xam ne iblis daf koy lal di ko pexeyal doomu aadama bi waaye di ko pexeyal ñi nga xam ne ñooy jaami suñu borom bi subhanahu wa taala mooy génne ak wéetal suñu borom bi subhanahu wa taala ci seen biiri xol waaye génne ak kennal suñu borom bi subhanahu laa ci xol yi ñi nga xam ne dañoo nara texee di waaye xol yi ñi nga xam ne amuñu dara ay kóolute waaye xol ñi nga xam ne euh, euh, iblis dëkk na ci seen biiri xol waaye di jax-jaxal seeni xol euh, ngir ñuy jëf loo xam ne suñu borom subhanahu wa laa daf koo aaye waaye ngir ñuy dugg ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo aaye waaye nag ñi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf leen a xéewaleel moom ñu nara a texe ñooñu moom suñu borom subhanahu wa taala moo leen di musal ci iblis moom mooy dox seen diggante ak iblis ba nga xam ne iblis moomee du mën a egg ci seeni xol ba man faa jax-jaxal dara waaye du fa mën a euh, euh, am benn sañ-sañ boo xam ne dana ko fa def kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala namm ci ñoom ak texe waaye képp koo xam ne iblis a ngi dugg ci sa biiru xol di ko jax-jaxal di euh, euh, màbb sa ngëm di la bokkaale loo yàlla euh, di la gisal gisloo sa bopp mu mel ni da am ak rëy wala yu demee noonu yooyu yëpp iblis moo koy dugal ci xolu doomu aadama bi waaye ngir lan ngir doomu aadama bi gis boppam gis ne moom mii am na man-man boo xam ne man na ko Euh, boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala du ci am benn yoon loolu nag foo gisee nit ki di ko def na xam ne kooku iblis dafa dugg ci ab xolam di ko jaxal waaye dafa bokk ci ñi nga xam ne ay woy texee di lañ waaye dañoo bokk ci ñi nga xam ne kaaraange gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala di aar euh, jaamam ñi euh, moom moomee daf caa daf caa rafle maanaam kaaraange boobu daf koo amut kon képp koo xam ne am nga kaaraange suñu borom bi subhanahu suñu borom moomu moo lay musal ci iblis moom mu nga xam ne day dugg ci xoli doomu aadama yi te la mu ciy wuti du dara lu du euh, euh, jax jaxal euh, li nga xam ne mooy xoli doomu aadama yi ba gëm gi nga xam ne moom lañu gëm suñu borom subhanahu wa taala wóolu ko mu bëgg cee dugg di leen bokkaale loo yàlla waaye di leen def ci ñoom ak rëy waaye di gis ci ñoom seen bopp ak naw seen jëf waaye di yéem li nga xam ne moo di seen bopp loolu yëpp ay. iblis moo koy defloo doomu adama bi ngir lan ngir dox digganteem ak suñu borom bi subhanahu wa taala waaye nag képp koo xam ne suñu borom bi na ci yaw ak euh, ak texe iblis moomu suñu borom bi subhanahu wa taala dina dox sa diggante ak moom ba du mën a agsi ci yaw bay jax-jaxal sa xol mu ne wa min ajaibi nabi na ci kéemtaani yonente bi al mustafa kadi kañu tànn salla yal na dolli xéewal alayhi xayru baaxin gën gi aji def des te mooy suñu borom subhanahu wa taala istafa tànn na ko musallimante dolli wóolu alayhi ci moom fil ali ak ci ñoñam alkiraami ñadi way tedd wa sahbihi ak i sahabaam maa xaadali feg wommat na almarama càkkutéef la minhu tukkee ca moom lii ñeel nee na bokk na ci euh, kéemtaan yi nga xam ne moom la euh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko dolli euh, suñu borom subhanahu wa taala dolli xéewal te musal ko bokk na ci ay kéemtaanam mooy lan mooy isaaluhu eggal ak eggaleem xadimahu liggéeykatam ba di cheikhul xadim radiallahu anhu lillahi ci yàlla billahi jëmale ko ci yàlla raadiyan mu di kuni gërëm anil ilahi fa suñu borom bi subhanahu wa taala waqataa te mu dog baynahu diggante moom euh, sëriñ bi radiyallahu anhu wa baynama ak lépp la nga xam ne lam yarda gërëmu ko moom suñu borom subhanahu wa taala euh, saafiyan muy aji saafara bihi ci moom li marda ñeen lépp loo xam ne jàngoro la ne na bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne mooy kéemtaan yi yonente bi sallallahu alayhi wa def gim ko def moom si euh, Serigne Touba radiyallahu anhu muy liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa jël ko jokkale ko ak suñu borom bi subhanahu wa taala ne na loolu taan la ci kéemtaani yonente bi waaye def gi nga xam ne euh, euh, suñu borom bi subhanahu wa taala def na ma may liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne na loolu kéemtaan la goo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala moo ko def waaye kéemtaan la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dafa bokk ci ay kéemtaanam mooy lan mooy jokkale gi nga xam ne moom la ko euh, suñu borom subhanahu wa taala bokkale euh, jokkale ak cheikhul xadim radiallahu anhu loolu kéemtaan la ci kéemtaan yonente bi waaye nag moom yonente bi sallallahu alayhi wa doxaat diggante Serigne Touba radiyallahu anhu wala suñu borom subhanahu wa dox diggante Serigne Touba radiyallahu anhu ak lépp loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala gërëmu ko ba nga xam ne lépp luy euh, jàngoroy xol lépp loo xam ne day mën a gàllankoor doomu aadama bi ci topp suñu borom subhanahu wa taala nam ko neexe loolu lépp euh, Serigne bi radiyallahu anhu suñu borom subhanahu ko cee waaye loolu lépp suñu borom subhanahu wa taala daf ko cee defal ak jagle ba nga xam ne iblis moom mu nga xam ne mooy di jax-jaxal xol yi doomu aadama yi di dugg ci seen biir euh, di yàq seeni jaamu yàlla waaye di yàq seen tawxiid loole lépp suñu borom subhanahu wa taala daf cee musal a cheikhul xadim radiallahu anhu moo tax mu ne bokk na ci euh, kéemtaani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yal na ko suñu borom subhanahu wa taala dolli euh, jàmm ak xéewal Euh, mooy eggale gi nga xam ne moom la eggale xaadimu rasul radiallahu anhu ci suñu borom bi subhanahu wa waaye mu def ko muy gërëm fa suñu borom bi subhanahu wa taala waaye mu def ko mu muy koo xam ne lépp loo xam ne euh, day ràgg-ràggi xol waaye lépp loo xam ne dafa mën a jax-jaxal ab xol wala mu mën a yàqal doomu adama bi ci digganteem ak boromam def gi mu def loolu lépp saafarawu ci xolub sëriñ bi radiallahu anhu nee na loolu ay kéemtaan la yoo xam ne ci kéemtaan yi yonente bi sallallahu alayhi wa la bokk mu ne wa min mafasidil ayni bokk na ci yàqub aji e, kañu rëbb muy iblis turi daa yal na dàqeef ko ilaa siwaana mu jëm ci kudut ñun walan yari daa te yàlla bu mu rot walan yari daa te yàlla bu mu rot ixwa ubu ak bewalam moom iblis man ka nga xam ne taraku bàyyi na alqur'ana alqur'an wal kullu te ñoom ñëpp yuxza danañu gàccewu haalikan danañu alku zam aanan di aji mar nee na bokk na ci yàq gi nga xam ne iblis yàlla na suñu borom subhanahu gën koo rëbb bokk na ci yàq gi nga xam ne yàq na ko jamono ak euh, yàq gi nga xam ne moom lay dugg ci xeli ñi di ko yàq nee mooy bewloo gi nga xam ne moom la bewloo doomu aadama yi waaye def leen ñu dëmmooyu li nga xam ne moo di alquran waaye def leen ñuy dëmmooyu li nga xam ne mooy njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jëm ci leneen kon képp koo xam ne da nga koo gis muy dummooyu alquran wala muy ginnaawal li nga xam ne mooy alquranul karim euh, kooku na xam ne euh, iblis moo dugg ci ab xolam di ko jax-jaxal waaye iblis moo ko bewloo iblis moo dugg ci ab xolom dox digganteem ak suñu borom bi subhaanahu wa taala te loolu jàngoro ju mag la joo xam ne fi mu toll nii xaw naa yaat lool euh, di loo xam ne euh, bàyyi ñu ci xel waaye mi ngi mi am bu baax a baax a baax kon képp koo xam ne lu mel noonu mi ngi dugg ci yow di la jax-jaxal xamal ne iblis moo dugg ci sa biir bëgg caa am place bëgg a dox sa diggante ak suñu borom bi subhanahu wa taala loolu rek moo tax mu dugg ci sa biir te duggeew ci dara nag ngir yàqal la waaye duggeew ci dara ngir dox sa diggante ak suñu borom bi subhanahu wa waaye dox sa diggante ak sellal gi nga war a sellal suñu borom bi subhanahu wa taala waaye dox sa diggante ak jaamu gi nga mën jaam war a jaam suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax bi ne wa min mafasidil ayni bokk na ci yàq gi nga xam ne kañu rëbb muy iblis daf koy yàq turi daa yal nañ na ko suñu borom dàq ci yërmandeem ilaa siwaana mu jëm ci kudut ñun walan yari daa te du rot lanaa ñeel ñu ixwa uhu mooy ak dewalam moom iblis man ña nga xam ne taraku bàyyi nan alqurana alquran wal kullu te ñoom ñooñu ñëpp nga xam ne ñoo bew topp iblis du mooy alquran yox sa deef na leen gàcceel haalikan des na leen alak zam anan des na mar bu baax a baax ci li nga xam ne mooy ëllëg yawmal xiyaam kon képp koo xam ne du mooyu nga iblis euh, wala du mooyu nga alquranul karim topp li nga xam ne mooy yoonu iblis alquran mi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàccee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ñu topp lépp loo xam ne moom la yonente bi jàngale te digle ko képp koo xam ne du mooyu nga fi loolu topp njàngaleen iblis waaye topp yoonu iblis ne na ëllëg ci way gàcce ñi nga xam ne gàcce la ñuy feese dell rek ca ñooñu ngay mujj waaye ëllëg ña nga xam ne ñoo alku rek te ñooñu ngay mujjee waaye ëllëg ñi nga xam ne aw mar la ñu yëg ca bis penc ba euh, foofa rek ngay mujj kon yal nañu yàlla musal ci loolu moo tax mu ne fa kullu man képp ka nga xam ne taraka bàyyi nga zikran ak tudd suñu borom goo xam ne unzila wàcce na ko euh, fa euh, azala kon beddi nañ ko ber nañ ko ber nañ nafsuhu bakkanam ga maasaqaa in mu ànd ak texee di nee na xam ne Euh, bàyyi nga fi tudd gi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàcce te mooy alquran zikran mooy alquran dafa bokk ci turam yi az zikr euh, kon képp koo xam ne bàyyi nga fi alquran ñi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala wàcce di topp leneen loo xam ne euh, mooy leneen lu wuuteeg alquranul karim def loola mu di sa royuwaay nga koy topp waaye euh, gëm loola ba di ko jaamu ne na na nga xam ne bu ëllëgee yaag sa bakkan bi nga xam ne moo la doon xirtal ci loolu ngeen di topp leneen lu dul alquran ne na ak texee bi gu mat sëkk euh, moom ngay àndal waaye texee du ma gu mat sëkk moom ngay euh, dëkkaale yow mi nga xam ne yaa wonoon ginnaaw alquran waaye topp yoonu iblis suñu borom bi de huwal moom mooy téere wo fiihi ci biir téere bi nag xaala la waxe zalikal kitaabu boobale téere euh, kon nee na téere suñu borom subhanahu taala bi nga xam ne mooy alquran de moom rek moo di ab téere mooy li nga xam ne moo wér te képp koo xam ne bëgg ngaa jaamu suñu borom subhanahu taala ci téere boobu nga euh, war a jàpp euh, ba tax suñu borom subhanahu wa taala doon ko junju ci màggaayam na zalikal kitaabu mu mel ni téere ba dafa sori te fekk na mi ngi ko jege lool waaye màgg goo xam ne téere bi màgg na ko ak am solo goo xam ne téere bi am am na ko solo ak euh, dëxëñ gi suñu borom subhanahu lépp loo xam ne moom la jullit bi war a euh, jikkowoo ak nu mu war a topp suñu borom subhanahu wa taala dëxëñ gi mu ko dëxëñ ci biir téere bi màggaay googu moo tax mu koy junj mu mel ni lu sori fekk na lu jege la waaye màggaayam ak worma goo xam ne am amee na ko moom téere boobu. loolo tax suñu borom subhanahu wa taala di ko euh, junja noonu kon téere bu màgg la moom alquran nga xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa mucc ci iblis takkoo ko moom alquran di ko jàng waaye takkoo ko moom alquran di ko zikkar su ko defee suñu borom subhanahu wa taala mën na laa musal ci li nga xam ne mooy iblis waaye nag képp koo xam ne du moyu nga ko moom alquran di topp leneen loo xam ne moom la suñu boro euh, di topp leneen loo xam ne moom la iblis di xiir ñi nga xam ne ñooy euh, way texee di ñi bu ëllëgee fa euh, ca way pertaay ngi ña rek ngay bokk ca way pertaay ngi ña rek ngay bokk kon nañu gën a góorgóorluwaat gën a gestuwaat li nga xam ne mooy alquran waaye gën koo bàyyi xel ngir ci euh, gestu ko ak bàyyi ko xel ci la suñu àdduna di jege ci la suñu ëllëg yowmal xiyaam di jage waaye ci won ko ginnaaw ci la iblis di mën a amee barab ci ñun ci la iblis di mën a amee place ci ñun ba mën a dox suñu diggante ak jaamu suñu borom subhanahu wa taala waaye bu mën a dugg ci suñu biiri xol di ko jax-jaxal ndax xool boo xam ne alquran ma nga ca borom di ko jàng ko seetantal di bàyyi suñu borom subhanahu wa taala xel loole bu boobaa mën na koo dimbali ba iblis du am ci moom place kon euh, loolu la ñu bëggoon a euh, ànd ak yéen tey di tuub bu baax di jégglu lu ci dëng ngeen xam ne ci euh, ndonga li ko doon def la lu ci jub ñu sant ko yàlla in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh